mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti yi tey nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci di gën a fës ci xibaar yi xibaar yi ndiki tey dinañ ko door ci foofee ci Louga ginnaaw ab commerçant bu mag nag doon liggéey yàlla wërsëgalee ko nag moom nak naka noonu mu yëkkati lu tollook fukki million daal di koy jax ab rakam bu mu bakk ak nday baay buy wuyoo ci turu Mor Fall ak magam boobee joxe fukki million ngir rek mu yóbbu ko foofu yi nga xam ne moo di banque dencal ko fa moom moomee di Mor Fall dafa jël ci fukki million yooyu ñaari million dal di koy joué li ñuy wax pari foot naka mu joué nag pari foot di jeu hasard di ab loterie boo xamante ni rek bii kañ la bii perte la mu def ko nag daal di perte lu toll ak ñaari million yam ca dugaloon naka noonu nag Mor Fall dawul benn yoon ndax dafa jël li def ci xaalis bi dem fi nga xam ne moo di Tambacounda ànd fa ak ñaari xare yu jigéen yoo xamante ni ay taxawalkat lañ ay tubaab naan ko ay prostituée nag ñoom la àndal tëju foofee ca Tambacounda ñu jóge foofu dem foofee ca mosquée xaak nekkoon ab coow bu dox si diggante ay imam ak ñëw ñu rek nga xam ni dañ daan ñëw ci jàkka ja ginnaaw nag fan yi passé ba ñu amaloon ab AG ba AG boobu mujjee ci ay xeex ba sax ñi nga xam ne moo di préfet bu bi lépp mosquée commune ba mu nekk daal di woo rek ñi nga xam ni ñoo jiite li mel dem na sax ba ñaari imaam yi ak yeneen ñaar ci ñoom jotoon nañ leen a jàpp wala plus jotoon na leen a woo pour rek lijjanti li ñu mel waaye nag ginnaaw bañ leen woowee rek ba léegi am na lu ci jot àddu ginnaaw nag ay xibaar yu ñu taataan foofee ci mosquée Krak lii di wazifa ak xadaratul juma duñ ko amal fii ak ñetti weer li ñu mel nag ab suspension bu ñu amal la rek foofee ca mosquée ba ginnaaw nag ab coow di fàttali rek nag coow li fu mu jugee mooy bi lépp keesu jàkk la ñu këppoon ville dafa nekk en tout à dafa nekk ville boo xam te dañ ko nekk di tabax naka noonu nag am na ay entrepreneur ak ay investisseur même sax nguur gi jot investir fi ni nag ba ñi di tabax ñii sax jot nañoo commencé di defar seen logement ba di ko jaay waaye nag ab maçon bu doon liggéey foofee ca jam ñaajo moo jógee ci ab immeuble daanu si suuf rek jaare fa ñàkk bakkanam ambey nag ab professeur lu philosophie boo xam ne nag turam jotuñu ko fësal mais mi ngi doon sant ci jot na nag jàngale lu tolloo ko fukki at jàngal sax ay ndongo yoo xamante ni fi mu toll temee nekk nañ ay cadre ci dëkk bi moom nag ab édition rekk bu jëm ci wàllub sport bu ñuy organiser daanaka at bu nekk lii lee nag di équipe nationale bu Sénégal jotoon na ci bokk ci bi lépp jongante moom nak ginnaaw ba mu daanee Mozambique jot na nag am ci nga xam ni moo di finale équipe bi nga xam ni moo di Égypte nekkoon rek équipe jël na ndam li pour la quatrième fois consécutive ñu ñëwaat. tuuti ci coowal mosquée Crak ginnaaw ba nga xam ne ñi ñooy association des oulémas et islam bu Sénégal bëgg nañ rek ardu ci li ne mbir bi lépp mbir ngir rek saafaraal ko ñu gën ko xam ci Wakanda forever ki nga xam ni nag moo di baba mal di ab waykatub Sénégal dëkk nag fii ci réewub Sénégal moom nag nekk na koo xamante ni fii si àdduna bi ràññeen nañu fii ci Afrique moo nekk waykat bi nga xam ni moo gën a am li nga xam moo di puissance voix ba tax na nakk dañ koo jël ngir rek mu bokk ci ñi nga xam ni ñooy yoru lépp luy wàllub son maanaam way bi jëm ci série boobu di plaque Panther moom nag di Baba Maal démb nag teewul woon nañ ko foofee ca Black Panther mu amal avant premier li nga xam ni moo di Wakanda moom nag laloon nañ ko tapis rouge gis nañ ko sax mu ànd ak ñenn ci ay waykat ku ci mel ni nag kii di Rihanna ñoom sax ñoo bokkoon tapis bu ñu taxawoon dañuy dellu si waat tuuti ci Sénégal ñëw ci nga xam ni foofee ci ab quartier bu nekk ci Ndakaaru di Mermoz Mermoz nag li fa am kawteef la ginnaaw ab waaye rek boo xamante ni ab njublang la dafa dem foofee ci banque ba ngir rek daal dafa jël lu toll ak cent quatre-vingts millions yoo xamante ni moomu ko waaye nag ñamu ko sekkal ñoo ko gën a muus ndaxte laata mu koy récupérer rek jàpp nañ ko ba fi muy tollu tembe mi ngi ci loxol yoon dañuy jóge Mermoz dem foofee ca ñaajo ginnaaw nag ab usine bu fa nekk rek lu tolloo ko fukki ci ay liggéeykatu bi lépp usine ñoo fa jógee daal di daanu xibaar yi ni mel nag dina leen ko toppalaat fii ak suba ndaxte rek bi lépp info fësalul lépp lu ci nekk na waxtaan ak ki nga xam ni moo di Babacar Diop yëkkati na nag kàddu yu ñu mel rek daal ko koy jëmale ci ki nga xam ni moo di Babacar Diop waaye nag bi la wax nag xam naa ni képp di yeewoo fi ci Sénégal te bi lépp nationalité te doon Sénégal bi lépp wax rek njor na la ndaxte ki la di njiitu réewub Sénégal di Macky Sall nee na chemin de fer pour Sénégal maanaam yoonu raay dina ko dekkal nee na mu li ni mel nag moom moo ko wax njiitu réew bu Sénégal moom nag mi ngi xamal ni rek li nga xam ni moo di liggéeyu BRT mu nekkoon loo xamante ni nag dafa jàppoon ni rek dina antu ci dérédu yàgg xëy na rek dafay nekk loo xamante ni dinañ ko yokkaat waaye mbokki internet yi nag xibaar yi tey dinañ ko ndar keppee ak inauguration li nga xam ni moo di impact groupe nga xam ni kilee di Youssou nduur moo ko def foofee ci dem ñaajoo tey nag gis nañu kilee nga xam ni moo di njiitu réew Sénégal teewee na ko ak ñeneen rek ñu bokk fii ci lépp Sénégal di ay cadre fii ci wàll wàllub liggéey mbokki internetu SENactu TV tey nag li lañu leen indi loon ci li gën a fës ci xibaar yi di daje ëllëg waaye laataa loolu woyu leen di abonné te bu leen fàttee di appuyé wu ci cloche de notification bi pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii ci seen chaîne YouTube seen TV la chaîne au cœur de l'information